te lii gën a métti ñu ci ñu ci ëpp mooy euh, dëkk yi nga xam ne ñoo gën a développé en Afrique wala ñi nga xamante ne mën nañ leen a joxoñ ci ci en terme de développement euh, ñi nga xam ne dañoo euh, France daf leen colonisé woon duñ ci bokk rawatina réew yi nga xam ne dañoo am tellement de richesse mais y a cette mainmise bi nga xamante ne moom la moom la tubaab bi am ci suñu gestion ak suñu lépp ba tax na lépp lu ñu war a mën a def en terme de développement dafay taggatémbe yaa Seydi waaw soxna Mamy wax na wax ju am solo boo xam daal daanaka taawil na ko. Mhm. yaatal na ko. Mhm. waaye dama am lu ma jàng ci peuple Gabon am nañ yar. Mhm. gis nga boo xool démb ñu ngi nuyu militaires yi ñu ngi am ñu nekk extérieur sax ñu ngi naan waa léegi am na jàmm. kon ku nekkati jàmm ji c'est pas ñu ko woon mais ko dañu amoon respect. xalaatuñu tey euh, gamante na toll fii waaye xam nga nit ko amul xel te gëmul yàlla. toog cinquante cinq loolu ko dal. Ah, man gis naa benn jour benn photo boo xam ne bii <laughs> Ali Gabon dafa taxaw militaire bi da ko téye ci ginnaaw moom bu koy bàyyi mooy daanu. waaw ah, ñoo xam ne du ñu géex mosuma gis. <laughs> dafa taxaw nii ma gis EDK bi téye ko ci ginnaaw ci ndigli te xam bu koy bàyyi mooy daanu ki kay kon daanaka boo ko xoolee kay waaju pare la muy dem yoonam mais léegi nag yii gàcce mun ko passé dem rek léegi léegi rek maa ngi xool ci kii net kii bi ci net bi. gis ñu dugg këram xaw ma fekk fa ay paquet yi yu ñu jeex ay euh, mooy mooy directeur de cabinet bu euh, Ali Bongo fa xaalis boobu. waaw waaw gis nga vidéo kon kon moom xaalis boobu yëpp lan la koy doyee. waaye xam nga de la finance bu mu jëm. gis nga àq àq mm-hmm. gis nga lii bu ñu xamoon àq gis nga yàlla eh, lii du militaire de yàlla la yàlla boo demee ba xamu xamoo li la yàlla dénk yàlla xaaral ma wan la man la Mm-hmm. te lii dafa rafetul. ñaaw na de Afrique li ñu tàmbalee rafetul. ñaaw na de et puis moo kuu kuu man jàngu tubaab mais kuu moo garaaw. <laughs> mais du du géex oustaz du du géex. kuu daal xam nga loolu. kuu la xam nga direct la. nga ne lan moo doy waar. kuu dëgg la. kuu moom bu dul direct poñe la. dëgg la te dara mais ni ku nekk war naa ah, kuu nit nit doo gis gàcce jëm fa. léegi mm-hmm. gàcc bala moo gis fa lay taxaw. Mm-hmm. ba gàcce gorom xam nga lan la waaye nit ki daal boo lekkee li nga lekk yaa ngi yàkkat mu génnaat génn goo xam ne bii pour lan nga mën a digéré waat waaye lan naa lekk nag bu kenn lekk yàlla na xaaral ma desuloo. lii moom waxuma Gabon rek mais àdduna bi ku ne war nga ci jàng nit daal loo moomut boo nga ne da ko waaye dama ne fukki tibb ku ko jéem a seex da fot. maa la ko wax loolu leer na de te mm-hmm. kaay ma wax la de. gis nga oustaz mm-hmm. <laughs> <laughs> <laughs> ñoom ñëpp kenn amu ci bu jëntal gu rafet. Mhm. Ah. kenn amu ci une belle femme. te ma netti la. Mhm. film ka mooy ak a neex. bandi bi rek toog. film kaboy. jigéen ñi wër ko mu toog lu ko neex. gàddu ko di taxaw gi seen fital ndeysaan mais moo neexoon mujj gu dee la mujj gu bon lay mujjee. waaw. waaw seetlu bande bu gis rek mu jëm ni koy rey. waaw te fete koy rey. fete la koy rey xam yooyu yëpp nag ñi ko def filmé mais dafa daaw sax dañ ci war a jàngat dëgg la dëgg la kay dañ ci war a jàngat dafa naan sëxe lu bon mujj sax ci lu bon mujj fu bon rek fa man yaamal misqaala ay yàlla ay yàlla kenn moom yàlla nee na afala évoqué seen xel yi utiliser leen ko waaye topp garde corps rek et mais attent tey boo xam nag li tax gaa yi toog ci lu lu déew ñu du jóg doo ngeen laaj lu tax lu tax avion daa neex de. oh ah waaw. amoo visa. waaw ku la neex nga yóbbaale. Mm-hmm. boo dee fu la neex dal. Mm. lu neex ngay def. Mm. neel benn. benn waaw mm. big bii. di ko président am doole. Mm-hmm. dàq nit. fal nit. jox nit. toroxal nit. ñoo leen booy génn. motaar a jiitu. motaar na sa wet motaar na sa ginnaaw ay gardu ko ne sa kër. loolu bu deful attention. Mhm. di nga sànku te du xamul sànku nga. waaye privilège yooyu yëpp ngay am oustaz. waaw euh, boo doon liggéeyal sa askan. Euh, eh. di di ko taxawal. maanaam fàtte sa bopp jiital intérêt askan bi. mais du la faale sax privilège yooyu di gën a neex. te kenn du ko xaj. yow dama ne nit nit ci moom moo gaaw doylu mhm. gis nga bu doon li li waa réew moom jox nga leen ko. jaar ci marché bii dox dem sa yoon. Mhm. mais du la faale Omar ibn Khattab jamono xilaafaam sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu mais buuru Chine dafa bàyyi ko Chine di seeti Omar ci Madina ne ko Omar chaque vers trois heures ba quatre heures nii am na fu muy noppalu ci benn ci benn garab bu tudd côté Djolof la Djolof trois kilomètres mais dafa ñëw ci palais bi di naan ana amiru mu'min ki fii remplacé Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko xanaa romboo ca garab ca bu dëkk ba mu ne ah kay romb naa as góor góor tëdd tëdd tëddu. jël boppam féete ko penku. Mhm. waaye nag dafa mel ne kuy xaran de est-ce que di nga wax. Mhm. ñu ne ko ki ngay seet kooka la mu ne déedéet déedéet koo xam ne gisuma carte koo gisuma dalu façon woowu ak benn guttu ndox. Mhm. te ma ngay xaran xamul te mu xaran. du nelaw guddi day yendu xalaat ak coono. ñu ne ko ki ngay seet kooka la. mais xam lu luñ ciy jàng ñun. parce que Omar li nit ñi moom da leen ko bàyyil. te ku ci ne la atta ci loi du ma gis dëgg nit mukk di ko def tooñ tooñ mhm. kon àq daal da ko respecté moo tax tey yàlla aaral ko boppam mhm. waaye boo boo woon ci garde ko nan man sax est que lu ñu jégg rey ma nangam nangam parce que jubóo nit ñi moom daal li ñu moom muy seen alal jox leen ko waaye yow man dama ne emploi yaa ngi fii financement yaa ngi fii waaye waaye jox leen ñu ko moom ah, waa déedéet yow kay booy tibb di lekk sax nag oustaz ngay tibb di lekk at ñaari at yaa ngi tibb di lekk ñett fukk ak fukk ak ak ju yow yaa ngi tibb di waa doo suur. Baado da Baado dafa am suur. waa déedéet waa oustaz ah, ah, na mais faaw ñu suur nag bu ñu suuru dinañ jëlëb seen loxo ci ndab yi. moom wax dëgg moo leen dal. Eh, ñoom ñii ñëpp ko léegi ku xamul suuna ñu téye sa loxo. ah waaye kenn ku suur eh, gis nag te loxo yi yem leen dañ koy yërëb. Ah. yërëb nag lu ne xaj na ci. yow xamoo woon loolu dundoo ko woon yaa ngi dégg yow yàlla def na ne euh, mu dugal la ci biir xolu ñii ñi nit ñi fal la def la def la njiit nga nekk fay doxal di jël say décision jël sa big boobu comme ni nga ko waxee di rawat te yow sax da ko dëgg yàlla xanaa li fi jot a nekk yépp euh, en tant que chef d'état te te chaque jour am luy dugg ci sa kees boo xam ne yaa ko moomal sa bopp lu la yow boo paree sax nekk président yow mën nga caa dund ba doyal waaw loolu du la doy sëkk waaye nga yow nga toog ci ndab li rek yow nga ne yow dangay lekk doo doo doo bàyyi doo bàyyi ñeneen lekk. Seydou Seydou fekk ci ñoom. Seydou bari gi mbari na ma kaa nag. Seydou yaa Seydi waaw. waaw ñun ñi xam ak suñu sëriñ si dund ak juróom-ñaar fukki at at juróom fukki at juróom juróom-benn fukki at am soxna bëgg ci dëkk bi di leen dundal di leen faj te mu ñu suñu am trésor trésor alal ñaar dërëm trésor ba dee dem àjjana ah ko xanaa kon ñi yor teraanga du ñu xool ñooñu te yor carte d'identité nationale ni ko yore. Hmm. moo tax ñu dem àjjana bëriwul de ma lay ma ko wax ñii dem àjjana billaahi bëriwul ndax àq la fi yóbbu lu nit am muy dëgg nga xañ ko ko ah. <laughs> Yacine Diouf nee na. sàmm ñi àllaaxira sax dinañu tibb bu ñu tibbee ñuy cax seen loxo. Ah, foofu moom boo tibbee day neex suñu borom. soo tara tibb. Eh. ñoo tara tibb li ñuy tibb lañ bëgg ñu ba ko nañ bàyyi. foofu benn gouvernement femme de. dëgg yii ko ah. may leen toog ci gouvernement yàlla bi. waaw koy ak yàlla du nit foofu amul ministre député de. yàlla du nit. del benn. yàlla du prophète. yàlla du jinne. yàlla malaayika. yàlla yàlla la. Mm-hmm. te malaaka du nit du yonent du lekk du naan du gëmmatu du xaran yàlla malaayika. te ñoo yàlla ñooy liggéey te jibril musta gis yàlla la ilaha illa allah waaye yàlla day yónni jibril mu dem ci nit mu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko nag ah sa maam aadama day iñaan dañ ko iñaanoon bu tax ñu génne ko fa mu nekkoon mais coonee tax ngeen ñëw fii ci <laughs> aljana góorgóorlu leen distance bu gàtt ngeen fi nekkee bu leen fi ñaaw dara bu leen fi ñaawal dara ndax dama bëgg ngeen ñëw bu ngeen ñëw fii am jàmm aljana nag moo tudd jàmm te sa mbab daanaka nag ku dugg àjjana sax ay jeex na waaye nag dugg fa yóbbul hmm. moo tax bu la yàlla yàlla may ne lim na may taxañ ko keneen war nga toog di xalaat na waa man damaa gën diw ndax sees bi ma toog bi lay moom a dàq jàng gën ma juddu fa mais yàlla moom na neex mais nga nekk baadoo la nag ñi doon dóor sama maam dinaa leen dóor eh, dugg nga ci musiba nag daay lay <laughs> la laa. dina doy waar dina non non non seetaane ci ba xanaa xam nga seetaane. Mhm. ku fi sànq moo la sànq. na koy dëgg. mais boo jël sa xel sa conscience tranquillité ne ah arrête sama maam baax na tey dama wan ko maa la gën a baax. ma koy dëgg. dem ci xew yi dem ci dëj yi dem fu nekk. Mhm. forum ñu naan mu dem dara gën a neex kilifa baax waaye yàlla nga fi yàgg. Mhm. mu gën ci ci yàlla nga dee. te rek deewu yàlla nga dee ci wolof mu jëmal toro rek nga ñu kon bu yàlla daal. Eh, dam laa jox lu rëy xam ko waaye baadoona moom noo yàlla jéggal moom doxatu doxatu bi xëy yam loolu moom ko du téema xëy <laughs> <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf yaa Seydi yaa Seydi